dama laa ah, loolu baax na baax na ah, waaw liggéeyal de Mouhamed ñoo na fi barki dem moo kaso seet si ma di bàyyi daan dañuy seet si ñun dañoo màgg léegi sax ah, waaw yàlla baax na góorgóorlu rek yow insha allahu rabbi man léegi ma ñëw mu yàgg de maaleykum salaam du yàgg de coupé amul toogaay kañ jàpp li nga woon laaj. man de dinaa doon laaj kon njëkk a ndigal yi. waaw. ay njëkk yooyu lu ñuy woon. ah seen kër fii fi la yooyu dëkk. yooyu toll ni man. jigéen bii bu bees la dañ koo defaraat yokk doos bi waxuma la yoo mais moo si tax di leen dàq ba da nga koo pomp ndax dañuy dee wóolu. xamal naa leen de bu ne li mu mën kenn mënu ko kenn du kenn ko mën nag. xaaral dëgg ñu ne léegi vite fait c'est bien. moom kay c'est c'est vite fait. place ba kenn du ah dafa dof nag dafa dof moom xel mi neexut waaye li mel nii de xamal naa leen kër gi yëpp laa ci pomp kër gi yëpp yëpp yëpp yëpp garab yeeg fleur yeeg mango geeg lépp laay tey moom toj kër gi moom. laa ilaha illallah boo ma dal saal bi rek ay yoo la ndax jéeg ju saltee fi ne talu ñoo bale talu ñoo raxas talu ñoo def dara saltee salt bi bëgg a dee waaye vite fait bii <laughs> te maa moom ba allah allah man de man daal man man man daal maa ngi bëgg a man man daa mel ni buur dafa nekk ci sama kanam daay wax dama dama xëy sax ni téema koo woo waaw bi dem bi ñu tegee añ tuuti ma woo ko man man daal mbir mi jaaxal na ma moom nii daal mi ngi sama kanam jógu te may feeñu rek man daal jaaxle naa waaye naa trop trop trop ci mbir mi bi daal sant yàlla. Hmm? sant rek ñëpp ko def. ñëpp la ko def man mii fi mu ne damaa ku nekk ci bu diggu bët setagul am ay gént rek ci man. Hmm. ay nag dara de. mu tëddee day mel dañ ma koo tegal. yow it yaa ngi koy jëndee nii. du ma nelaw depuis loolu ma sama bët yi kay doy na waar yàlla boobu baax la nañ delloo suñu bopp hmm. ah, de de sax day metti na waaye man dee Hmm, dama ci daat sunu borom ndax yee ma ci waaw yee ma dégg yi ma yow boo xoolee sax fan yi nga xam ne ba mi nga doon gis ak bami bi bilaay du benn waaw li ma passé ma jaaxal nag waaye lu du ci sama kanam waaw moo tax sën ma toog xalaataat nii lu ma mënti def danaa toog baalu la man bi ma lay jël xale bu tuuti nga ba fii ñu toll kenn mënta wàññi ñaata at amoo benn bànneexu sëy ci man te lépp man reconnaître naa ni man la sama bànneex bu ne dabu nga ko lu ne jox nga ma ko ngir bañ ma sonn waaw waaw ma di la jéggul nag di ni man maa waat fii ci sa kanam lii des ci suñu kanam dinaa la téye ba ñu xam ne téye naa la billaahi dinaa la jàpp ba nga xam ne jàpp naa lépp lu moo mën def rek jéggal ma jéggal ma waaw ci leçon yu bari ci déegi billaahi gëmoo ko sax xam nga lodal tiit ak ragal dee xam nga ni jëm nga mag la nga dundoon doo ko dundati loolu rek la jàpp waaye yow doo kuy rëccu doo kuy delloo boppam ci borom ndax yow dara saful fi ne bu dëj bi rusee nga delloo buum ca mooy mooy ka rek jikkoo boor ba baax boobu ma la xool ba yàgg nag ma yéem sax ba li ma def ci souffrance ci àddina bul fàttaliku fàtte xaju fi fàtte fi xajul ba nga topp sa naf mu guddil la ba cëgal la ndey bañ baay bañ ma lànk laxasu xasu na yow la hypothéquer sama avenir yàq sama jàng man ko naroon a tekki laa ci dëkk bi waaye may xale topp sama bëggeel defe ni jar ko samay mbokk ñëpp abandonné ma ñëpp di ma ree dem naa fi ba man sax man je frisais la foli dem naa ba topp Ndeye Ndiaye ci lu ñàkk fayda ne damay xeesal di sol ay tabas lu ne ma ko di ko rien que pour récupérer mon homme nga mel ni ko gën a rakkaaju. bul gis nga bu muy dem hmm. nit dina jur nit wëlbati ko jéppi ko na yàlla baal waaye def la jéppi woon ndax daf daan toog ba yàgg naan ma yaay kii nga topp jaru ko kii tax ngay wañ sama loxo jaru ko. bu ma mënoon a wuti beneen bàyyi dinaa ko def eh. wax na ko du benn du ñaar dem na waaye xolum seddul ci mën naa ne sax na ma yàlla baal demam gii lu ko dal rek la jóge non tu es à ko jël du man waaw yàllaa ko jël waaye loo gis dayam fu mu jóge ba danga ko teg stress masul am jërëjëf waxuma la jërëjëf waaye ñaan sax mosu koo am ci yow ndax fu mosaan a amee problème nga démarqué wu daw xaw nga fi ba tey ni ma sàcc la bu ñàkkee nga nga jékki ni am nga fi sa xaalis dem di beru bedd ñu teg ñu fële j'ai subi tout sortes d'humiliations à cause de toi ba toroxal gu ne da ma ko toroxal fii ci kanamu nit ñi. mais maa lu ñaaw lu nit di def nit def nga ma ko yow y a pas ton deux sur man ba ma talee gis man ba ma juddoo ba nekk di ba am at yi maat musuma gis ku la gën a bon ci àddina bi. Ah, doo ah, dama defe ni sa bon gi c'est dans tes gènes. mais jégal loolu weesu na nañ wax lii suñu kanam. mënu la weesu ndax tey kee ma bëggoon ci sama xol bi ñàkk ko muy sama dagg di bu mi lu ko dal ci yow lu jike mënu ma la ko pardonné dans ma vie bu bu wax ni man la man yàlla la jël jaamam du man de du man ma teg ci naqar ci àddina ba yàlla rek laa koy bàyyil mu ottem ak kaw suuf ah te gis nga ba man ba pare ci yow moo xam nga man lu ma retenir ci sa kër gi buumi sama doom di sama nawle dañ ma fi rek bañ lu ma naqari lool waaye comme def nga say defin mbugal ko sonal ko ba mu daw dem àllaaxira bàyyi la fi man nag la leen di bu lii ruuse danaa la abal sa kër tourner la dos pour de bon te gis nga mënoo ne gannaaw mbindeef man tax ba ma dellu fi ndax kenn laa doon ruus mooy boobu te bu boobaa nag bu lay boog nga wut say fukk ñëw teg te sax sa njaboot ak say jabar gis nga yaayi góor mu fi ñëwee di jaale si da ngay dugalanteeg la ngay def di ko lijjanti ndax yow wut nga sa élément de rechange ba toog ndax góor nga diw bër bi comme boo dem na nga ne naa jël góor a teg danaa ko xajal la porte sera grande ouverte ma dem abal leen yéen ñaar ngeen nit seen jàmm man pare naa ci yow yàgg na rien ne me retient plus de cœur pour toi ni ma def. sën bëgg nga delloo si sa xel man fii ma toll. dama nga xam ne dama mel ni kon nekk ci pax mi te bu ma rëccee rek c'est fini ma lay tàllal loxo boo ma jëlu sama loxo bi sauvé ma rek dinaa dem si te fekk man nga yaakaar ma téye sa loxo man nga xëcc ma man ànd ak yow ci pax kon dóor nga sa loxo ci ëkk da nga mujj yow au fond du guuf dem fa gis nga lu li nga def lépp effet boomerang xam nga lañuy ñuy wax effet boomerang léppay dellu si waat def bon ndax def lu bon jaaxan di tuur ndox la yàggam yàggam ci sa kaw lay dellu te li nga def lépp na dellu ci sa kaw tey ngeen sànnis ma ni. sànnis waaw. <laughs> lan la. dañ lay masawu rek ndey. lu xew. ah sa agression bi. yow fii nga xas ma jàpp ma waas ma ma lu ci jëm. da nga la kooku beneen kaa lañ doon lijjanti man xam duma la xas sama soxna nga ah. xaw naa dee de. Ah? man kañ moom sama agression bi laa xam ne am na ñu ma bëgg am na ñu ma bañ. Oh, est nit ñi fii leen fees deel ku ne di ma ma saw te gisuma leen surtout caam ak yow ni ma mer ak yow. lay jaay. la moo tax ma ñëw. toog ak ñi ngi mii di la laaj vraiment les détails de ton agression ah, nga expliquer ñu réellement nan la demee lu ma ci mën ma def ko yëgoo leen ci dara fekkee ni plan bi yàlla xam ne yóbbu ma ci dara su jaree ma def plainte ma def plainte jël comme maa ngi ciy toog mais nan lañ la agressé exactement man loolu mooy sama problème ba léegi dem naa ba dem section de recherche capitaine Diop ah, ah. gis nga wax naa ko lépp kaa bi ba benn waaye man daal damaa génn rek taxaw ci buntu kër ci tali bi di wut oto pour dem Mm-hmm. amuma si daal ku ñëw rek am lu ma fóonoon rek buux bu dugal ma. fóonoon. loolooy sama nelaw ba nii may waxee ak man daal def ma lu jékki-jékki rek gis àll bu bu fees dell ak ñax waaja teg ma fa jàpp ma di ma sox dóor na ma dóor dóor dóor ba mat sonn mu yëkkati poset ba jox ma sànni ma noonu benn waa ay ma sàmmkat ñoo doon dox rek gis ma fa jël ma. dugal ma fenn sanga ma ma set ne ma dem foo dëkk ma expliqué leen lépp ñu ñoo ma jëlal oto xaw naa dee. boobu déclaration nga nga joxe gendarmerie. waaw bii nii. section de recherche. man bi ma demee section de recherche beneen beneen kii la PV laa fa gis bu dul bi Ndeye Ndiaye. mais Ndeye Ndiaye lu tax yow nga mën cinéma lu tax nga yow nga mën a dóor ay nit quoi. waaw lan la fi dóor xaj na fi. gisoo sama bët liy dóor xaj na nga ni keroog dañu laa poñe. jël xaalis tey nga ne dangaa jël musóor ko ma def ci poids loolu yéen boobu tey ah? jàkkaarloo ma leen dama ne gis naa dama ne gis naa PV bi laa wax mais moom man dama affolé xaw ma nu ma ko nettalee re jàppee leen ko ba léegi choc bi damaa jàpp d'accord mais léegi fay ñu suñu xaalis ban xaalis xam nga eh, eh bu ñu fontoo ban xaalis dofuloo jine jàpp la pantonglu la yow lan la fay ñu suñu xaalis waaw da ngeen ban xaalis suñu dix cent mille yi nga jël denc ko ba jox la ko waaw. ku ma ko jox. ba. góor a nee na ba jox ñu xaalis bi deux cent la. xaalis bi ñu góor a may. waaw six cent mille la woon nag yow Ndeye. waaw yéen pare boo yow lii moom quatre version wax nga ko ci sa agression. waaw garaaw na choc bi laa nekk lu ma wax rek gëm leen. lan la. xool lu nekk léegi dama am dépression. ni may waxee yow nekkuma de. gis nga man pour ma doon nit dëgg pour ma doon nit dëgg da nga am dépression man. a ah, déglu la ma leen. nga ñu wax xaalis bi góor a moo leen ko may. ñu ko may waaw waaw man góor moo ko tegoon sama loxo ne ma si dëj bi la laa koy def. waaw léegi kañ la waxaat man loolu yëpp yóbbu ma ko ci. ma ne ñoo waxtaan ak moom fii. Ah. man ak xol ak càmmi ku ne na jël deux cent mille. xool na nekk fi dan la koy wàññil. ma jël deux cent yéen jox leen ku ne deux cent. jox ñu yaa ko xool xam. Ah, ah non non ah yaa xool amu ci de na ndax peleñaa bi laay bañaat. xool sama yoon nekkul si moom xool moom xool man a mbiram xool sama yoon nekkul parce que seytaane moom la. waaw moo ko bañoo ànd ils sont de mèche. jox ñu bi daa na yéen yéen xam ma man ak yéen dañoo yàgg dama dóor. Mhm, bul mel leen ni xamoo daal. coow na yem fii daal. Mhm. mais condition laa leen tegal pour jox leen kii bi. sonde garaawul tri onde bi ah, doon foo onde foo mm-hmm. mooy ba li mu sikk ak yaayu góor a ngeen wax ma lépp étalé leen man dinaa régler problème bi une sapette mais yéen yéen a may wax dil bi ma di jënd loolu moom c'est pas mon problème xanaa wax ko ah. waxul man ma wax ko ah, waaw ma rek man après lu ci am man man damay mel waxoo ma dara naa ko lu jënd man ni man maa lay wax lépp te ragalu ma ci dara mi ngi booy bi ci pet de da koy doxal. ñi ngi gisante ci pet waaju finalisé sax nee na sax da koy taq. ko xooli yaay góor a nu mel maa moom ñoo tolloo waat. non moo la gën a tooy. yaay góor a gën a moo la gën a waaw. kooku meer la. moo la sut ëpp li gën laa xees sës del na ñu. ah bon waaw waaw man daal du ma ci wax mais li ma la mën a wax mooy planter garde un point un trait. ma jël samay garde waaw mais du ma ci wax daal. c'est pas mon problème doxaan na ko doxaan na ko. sama nekk da koy gérer ah yaa ko finalisation ñu koy finaliser te kooku ndey en tout cas boo jëlul say devant kooku bu ñëwee dina la bu yaade de. lu leer maire dina man yàgg a joow dina ma bu kooku maire la mais maire bu taxaw la de dafa taxaw waaw mais ñun moom daal loolu laa ci mën a wax li ci des du ma ci wax dara ah, waaw waaw eh, yéen maa xam ngeen yéen ay focacère ngeen mu ah, ñaan ñi yow nga la yéen yéen kuy wóor ko bon ay seen ndax yéen daa da ngeen ma koo yéene de ndax ni ngeen nettale pour dagg sama xol yaa ko laaj waaw léegi man laajatuma leen te seen ngeen da amul laaj yéen ñaan ñëpp joxuma leen cent francs la foo leen ma woon ak ma wuyu leen ah, man maa ngi dem def sama plainte. yow boo demee police dañ lay wër. dama dama man li nga fa fekk ay plainte yu eh, bari. yow xale jigéen dañ laa plainte ba tas dama. boo demee di nga am déception de danañ lay téye. dafa soxor na ci pet quoi. yéen a yam. non yow war ngaa wax na ay ko moo la ko kii. waaw mais dama lay wax dëgg gi pour nga jël say devant yow wax ak ba mais loolu la xale bi dafa xeesal ba weex tal et puis njool moo la sut. waaw yaay góor nu muy nu muy kooku mënul tooy nag. si bawul boppam de. Mm. kooku du sangu xale di ko yërndu de ñu mun a def. Ah, wala man am naa ci ay stratégie yu war a def. waaw léegi tegal nañ ci joué yow jox ma tout onde rek. ma tout onde moom mënagul ñëw moom. mu ne. ma tout onde yi ma ay stratégie jéem ma tas fa la. dama laa agressé dëggantaan Ndiaye. Ah, lii laa doon kenn agressé wu la da ngay dóor. waaw bu yowoo yow sa vax boobu dóor naa yoo xam naa li may xam doo leen yéen yéen yéen yoo leen sëru xaalis li leen jaral te doyoo woo leen ko leen lu dul groupe eh, yéyal ma ko fee xale yi ngeen topp rek yéen dem leen rek. yow turandoo yow turandoo yow lan moo la dal yow turandoo da ngaa soxor ba soxore ma man man mi sa turandoo yow xaalis bi nga jox ko sa papa sa papa ko jox ko sa yaay yow xaalis boobu loxo yi mi jaaree mënoo ko woon yëkkati jox ko sama loxo bi man mi xam ne boo problème sa jëkkër maa koy réglé turandoo delloo si waat sa xel man maa la daan boot maa la sang lu ne defal naa la ko ci àdduna ceenu or goo takk maa la ko gëndal jaaroo boo takk maa la ko gëndal mu baax maa la bu ba nga nekkee xale ba tey maa lay toppatoo. kon sa jëkkër watu fi indi benn somme un million un million mooy lan ba ngeen tiitaru lan mooy un million yéen indi un million bi jox ko jaxal yow kay dikka dama bàjjan un million bi nan lañ koy def. su ko defee naa teg ci ay ay tànk yu leer nañ ni la jox sa papa wala nga jox sa yaay li ñu des ñu jéem xam nuñ koy def mën cee ndugg mën cee togg ndax gan ñi chaque jour dañuy ñëw waaye yow defoo ko ni ngi nii da ngay am kilifa di jaay maana ak tiitaru tiitaru jël un ko sa lox papa moom seytaane bi jël ko jox ko sa jox ko sa yaay ma toog di leen laaj kenn bañ maa faale loolu ngeen teg ko fan loolu pour lan non dama lay laaj loolu pour lan la. gis nga Badiane yow man mënuma la comprendre Badiane xanaa yow yaa doon xataraayu fii di jooy di yuux naan sa dund gi bëggatoo ci dara ndax deewu boobu. daf maa naqari. yow sa diggante ak xaalis lan la gis li nga def nii lu ko raw la sam doon def di xataraayu di jooy ba ko joxee un million mel na ne du woon moom. man li sa papa newu ci man man sama dëgg laay def man dëgg sa sincèrement sincère tey ngeen a delloo seen xel si yàlla li yóbbu bu du leen fi bàyyi de. ak yow du la fi ba xaalis bi moo tax ngay rappi rap <laughs> leen de xamal naa la ko man dama sonn ci seeni jëf waxtaan naa nag ak sama yaay ndax aw maag moom benn nëbboo dama jël décision comme Paate jox na ma xaalis pour ma liggéey damay génn kër gi dem wut fu ma dëkk fooy dëkk. liggéey sama liggéey. muy yéen. eh kat yow foo jëm ak gën jëkkër paate man paate li mu la jox pour jaxalal de pour ay commerce de ah damay ñibbi sama kër jëkkër damay damay damay damay jaay damay def lii yow tee ngaa rek te daal ta toog ci kër gi xam ne fi la sa ndong li wadde nga war toog toog jàpp sa jàmbur xaar paate ba mu ñëw yow xaas bi nga dajale sa natt yi nga da doo teg moom nga jël ko commerce a fen nduy mën nga fen de. Baye li nga bëgg xam naa ko waaye du ma la si fekk si. man sax nga ma fekk ci leen. li may wax wax naa ko kër gi dama koy génne. yow boo génne leen nag laa la gën a laa lay xamal. bàjjan nga dem jéem a toog gérer sa sëy bi nagam man mii xale bàjjan maa toog mën a ah, muñ di gérer ah, sama sëy ah, waxantuma la ak yow mi nga xam mën nga maa jur. yaa ngi def surprise nag dugg nga de yaa ngi def surprise de yow man sama sëy lu sëyoon doo liggéey sa sëy ndaay sa sëy baay. ak sa sagaru sëy si yow yow man léegi yow yow turandoo da nga may affronté da nga yëg ay niveau da nga yëg niveau ah turandoo wàccee na déedéet boobu du dem boobu du jàll de bu fekkee da da da da nga da man maa la gën a rakkaaju bu fekkee da ngaa dëgër bopp maa la gën a dëgër bopp man doyoo ma sax galandiku léegi da ngay wax di piis sa ka regeju yow kañ nga mel nii.

mais eh, baax na. yow gàcce nga ñu bëgg a teg ci biir kër gi aw yow ban façon aw doonal nit xuloo nga feeg umm ñu bàyyi mu sedd ñu ne dendawaay nga kar Amina mii yàq ko lu mel ni keteme ba Amina gédd kër gi génn dem yoonam nga teg ko fan ci koo xamante ne mi ngi teeñ sa mag aw yow daa mel ni sa deewu mag gi saf na awañ delloo si sa bopp te li nga ko wax nag ëpp na de yow war ngaa wax ne daa am jëkkër am far ah. tax de baabu de Amina dama koo may li ma ko bëggoon wax yëpp su ma ko waxoon dama bëgg mu fekke ji buub ndax dañoo bon dañoo mën ñi xaw ma yéen ay façon nit lañ umu nag moom dama koo may ndax umu moom bu ma paree si moom dina ma abal ci kër gi ci bitti ñoom ñëpp may abal ba mu des fàttali ne umu kenn gënu koo bon kenn gënu koo yées. umu kenn xamul ban façon nit la ndax bon mënul weesu mu bàyyi ba bu feebar nekk ci diggante dund ak dee mu poñe ko ne ko may ma sama baat kooku bu amoon di ko gënal du teenji boobu. Amina nag dafa farantu ku ko gën a bon moom amul moom ndax moom dafa am jëkkër ba pare am far. yow lan moo la leer ne Amina daa am far. maa ko gis mu toog a góor ñoom ñaar ñu nekk di reer loolu war na ko te bu feebar sa jëkkër war naa feebar gay génn di ànd ak beneen góor loolu yoon. Amina day liggéey ci liggéeyam la nekk. te war naa am rendez ak ay partenaire am ci ci restaurant war naa mën a liggéey ak góor liggéey ak jigéen waaye aw man bu mu fekkoon marché ma toog kon man toog ak góor di waxtaan kon xanaa nga ñëw ne góor ku góor ki sama far la. ñëw mi waaw yow loolu doo ko def. <laughs> beneen bi ci des mooy fii laa ànd ak sa yaay te xam nga ne dafa tukki te xamoo ci lu mu nekk de ump na la de ànd ñu ma moom benn cousin di ko woo te góor la ñuy waxtaan. xàqataay bari est-ce que man wax naa ne faram la. awa nit day am bàmmeelu buur am sutura sutura nag amoo ci dara bàllu nit ñi nëpp nëppal nga ne man maa koy wax may pëliñ pëng jeegu ñay loolu du wax waaye gis nga buu mee tëdd fee moo xam na lu mu fekki de waaye yow xamoo looy fekki damaa bëgg na nga toog rek la sa bopp parce que xale nga nekk ci yoon te lu nekk nag mën na laa dab lu nekk mën na laa dal yaa may dégg. waaw rek la sa bopp gis rek mu toogoo kooku ma yaakaar ni faram. Amina génn na ëmb bu ko attaqué su waree génnoon dina génnal boppam mais bu mu génnee ci yow. sama àdduna yàq ko loo gis mu metti nga teg ma ko topp sa bakkan yow bu waajur yëpp meloon ni yow doom soxlaatul waajur ci kaw suuf di takki jabar di teg takk ba dajal ñeent wut yeneen takk leen suuf fama ne dara umpe fa sama àdduna lu ma yor nga ropparti ko bu ma dawee ba am fu ma nekk ak samay soxna nga daw fekk ma fa di lekk li ma yor ma saf ma màtt di naan sama deret ba tey ma dee leen nag laa lay man ak yow day doog a tàmbali sama yaay rek lay xool kooku ndey ju baax la woon jege woon doomam sàmm ko yiir ko aar ko bëggal ko lu baax nga yow ak ñu mel ne yow ñi ma àndal yàqamti nañ bu bu sa papa la man mosuma yéene def la lu bon bu man sama xarit nga woon yow morom nga woon lu ne nga amaloon bu bu lan la ah bàyyi lii bi nga demee ba léegi man lekku mutuma naaratuma ah bu sa papa la kër gi ngay jaay yomuloo ci loolu ma lekk ba ma jeex ma dem nga bëgg toroxal sama njaboot lan nag laa lay wax noppi di ma gis ba keroog nga may fekk si man ak yow ci sama wet yow gis nga boo yegsee fee ku fa bari plaignant sa kaa xaw booy lijjanti mais avocat sax mënu ci dara Thiam mos ngaa dem sëñ Abib mel mi seet. ki nga xamante ne chaque jour quarante et un lay jël. waaw di leen seetal. ma seetal da ngay def ndànk bu la neexee mën nga koo jël woo ci téléphone wala bu la neexee nga vocal ko waaye vocal bu wii yëpp baax na waaye nit booy defante wu da ngay jàkkaarloog moom ndax kuy takk soxna il faut nga seet sëb sëy lëbët ko. boo nelee baax na nga dugg ci bu nelee bon na nga génn ja ndax lii moo war a sëy yi bari di di yàq waaw te damaa bëgg nga dem fa nag. yaa ngi su ko wax man sama sëy yi ma fa sëy yëpp fa yàqu ah, ko. dem fa de ko. dëgg dëkk bi de ah, kon baax na kon bàyyi ma dem bàyyi ma dem daal nee na. Ah. képp koo xamante ni bëgg nga koo si na nga ñëw ba ci këram. moom nee na vocal yi sax da ko mënta nekk di kii vocal di la ci seetal daa bëgg nga toog face à face corps mu lay seetal di la waxal loo xam day dugg sa biir nopp bii lépp lu mu wax dëgg lay doon. kon léegi yow dañ ko dañoo ànd ma yow ñu dem. ah man de man boo bëggee amul benn problème. mu li si xaaral ma xoolal ma. Ah. ndax sëy bu ma dugg mu tas. lu ma ah. bëgg mu yàqu. Hmm. Ah, wax nga dëgg de bàjjen. dëgg sëy dañ ko li si xaaral dañ koy xool de. dañ koy xool sëy dañ koy ñàkk. moo gën ngay takk boo takkee tey bu subaa mu dem bu gannaaw subaa mu ñëw. nga waxi mag nag tey de. ah waaye man ma may mag nag yow tamit nag. waxi mag nag tey de ah mag laa de. Ah, ah, jógoo ñu mag mën naa bàyyi jub réew de. Eh, loolu du ma ko wax ah nañ dem kon nañ dem nañ dem ñu seet ko incha allah. Ah, bàyyil ko paas. yor na bàyyi ma paasal la. tey kay maa lay paasal la tey kay yaa may peew nañ dem. incha allah ay man caa ma jabaram yi.